ont réussi un taux de recouvrement plus que satisfaisant. Et que les avocats qui en avaient versé, en avaient versé. ñooñu ñoo dajale seen kàddu jox ñu ko ñu doon ay maire ci gox yooyu ak goxaat kon ñun duñ nag ku taal réew mi te nag tous les maires ont ferme boo xam ne képp koo xam ne manifestation amati nga jóg nga ne da taal su boobaa da nga xam ne ñun nga koy digaale te du nangu du ñëw ki nga xam ne moom moo ci gën moom la yëkkati suñu loxo ne yow. alimentation boobu bi ngeen di dox si ñëw dara jotu leen di ngeen ci jàmm loolu démocratie la loolu stabilité réew la te kan moo koy kan moo ko waral kan moo nekk ci bopp réew mi président Macky Sall nañ leen ko ko sant référendum 2016 bu leen fàtte ne opposition dafa boycotté ñu ne du ñu mais ñun ñi nga xam ne ñoo dem ñun lañ fa tënkal ak suñuy population mais duñ leen ko wax ñoom ànd nañoo ñun parce que ñoom ñoo ñu fal te ñoom ñooy ànd ak ñun encore falaat Macky Sall 2024 allah donc côté boobu bu ci am ñaari xel. xam nañ bu baax na ne Macky dese na ko benn cinquante ans cinq boobu bu soobee yàlla dinañ ko ko fal donc foofu laa bëgg a sama intervention wax leen ne réseau des jeunes maires amul temps discours ñun ci liggéey la ñu jëm président Macky Sall du moom mooy déclarer candidature am il faut tamit loolu leer mais ñun ñoo koy jël samp ko nit yow yaay suñu mbër forcé ñoo lay ñoo lay votel ñoo lay baatal campagne votel la le vingt cinq février nga gañ loolu mooy différence ngeen xamee ko noonu te ni ko waxee tamit du ñu nangu kenn taal réew mi duñ ko nangu te duñ ko seetaan ndax ku ci nekk bëgg nga nga yeewu ci jàmm sa kër dem liggéey dellu si ku def loo lu defu na nga dem tontu ca justice fii ñëpp a yem ci justice nañu am yaakaar ci ñoom ñu protéger leen sàmm leen ndax comme ni ma ko waxee la lenn loo mooy mu euh, mbaar kennu mbaar kenn du ci jàng koor ndax bu daanoo ñëppay daanoo kenn ci jàng asalaamaaleykum nga nekk opposition wala nga nekk un simple citoyen wax saaga institution ne duma répondre à la justice def yow ak say njombe yu bopp nga bëgg ko sippi état ñu bàyyi la ngay circuler librement à tes occupations parce que contradiction yi nga xamante ne am na ci seen wax yu warooy loolu kenn naatable wu wax lii tey wax lee suba même bu nekkee ne dañ laa tooñ nangul ne nga dem répondre à la justice mais bépp institution bi nga xamante ne jàpp nga ne day atte te xam nga ne boo demee da ngay daanu da nga koy jabolise te ay góor ñoo fa nekk Sénégal commencé wul tey commencé wuñ fi woo politicien tey imaginez un magistrat bi nga xamante ne commencé na exercer bi Macky nekkul ministre sa wax ma président de la république mësul investir ci carrière am mësu koo jàppale wala xamu ko sax mais nañu garder présomption de dignité kooku ñu bañ ko ñu koy manipuler parce que xëy na vraiment dafa bëgg li dafa bëgg la Sénégal dafa yomb te nguur gi aussi ku ñu joxoñ saa naan dafa xaw a péete nguur gi nangu la li lay koy changer mais sentence bu ñëw ñu ne non non c'est parce que parce que xam ngeen ne lu xew Sénégal c'est inédit mosu fi am sénégalais na jot nañ ñu posé wu de telles questions entre ki nga xamante ne moom moo tabax jumaa yi ak jawiya yi tabax autoroute defar train express mu defar building administratif te li ma leen di wax ni ça c'est des symboles de la colonisation kon bu ñuy wax le vrai décolonisateur au Sénégal c'est le président Macky Sall parce yooyu kenn ci ñi fi jaar ñi ñëw laal ko parce que xëy na seen poste attanu ko wala seen vision loolu li may wax c'est des faits c'est du factuel zéro mètre de rail voie ferrée amuñ ko fi des indépendances en de la colonisation en maintenant Macky Sall moo fi indi train express bu gën a moderne même en France ñëpp am ci fierté indi fi BRT indi fi Air Sénégal SA kan moo xalaatoon yéeg avion dégg ñu ci làkk olof c'est ça la national loolu la ñu war a jàngal xale yi wone ne su ma demee à l'école je serai le meilleur demee à l'université je serai le meilleur suba vraiment pour développer ce pays mais mandat bu ñu mënta laaj nañ xool fan la jàmm Sénégal féete te Macky Sall bi muy combattre candidature Wade d'accord nañ ci mais accepter que c'est le meilleur républicain parce que jour bi conseil constitutionnel ne Abdoulaye Wade am na droit bokk kenn mësatu ko gis place leen nee na on a perdu la bataille juridique nañ dem ci bataille urne yi ça doit être un exemple pour que ku ne xam ne les sénégalais ñoom ñooy tànn te ñoom xam nañ ne bu fekkee dem nañ ci transparence dañoo perte bataille du bataille juridique du bataille électorale kon loolu aussi jaar nañ ñu leeral ko bu fekkee am na soxna mi loo ci àddu leen di xaar pétrole ak gaz ba pare njiit yi ko yor sóoraale ci la génération du futur am lu dencal ndaw ñi ndaw ñi nañ xam loolu moytu lakk bi ak taal bi ndax ku ne xam na ne réew dañ koy aar yiir ko am na fulla am na fayda waxam nag bëriwul waaye ku fonk réew mi te loolu ñun ñoo ko war a xam nañu xam ne président Macky Sall ci jamono yi tool ci ñiy tàllal di laaj réew mi moom moo fi gën te ñun moom lañ tàllal pour doon suñu candidat incha allah incha allah koo xam ne journaliste nga bàyyi la ca la dernière énergie parce que loolu ñun bu ñu leen ci tontu woon kon duñ sa kër ci 24 heures ñoon xam nañ ko te nag on est prêt à y faire face incha allah rabbi on vous remercie merci beaucoup.